Toujours dans votre acte du jour de ce 6 septembre 2024, une fois jóge il y a encore un journaliste soi-disant journaliste Mansour Diop depuis un certain temps qu'on doit connaître, kenn xàmmeetu ko moom it yéey na ci yàbbi yëkkati ay position ñi pose la question ndax journaliste la wala juge la wala avocat la wala militant parti la wala c'est un responsable de parti politique en tout cas nañ déglu ji Mansour Diop le soir Une session extraordinaire permettre de leen mu am de quatre jours à l'Assemblée nationale.

projet de loi bilan présent président de la république teg ci sen loxo yeen ci un bop am sept jours pour nous dissoudre cette institution Nous, nous mooy bëgg-bëgg Sénégalais. encore une fois ci biir commentaire sénégalais am na ñuy wax ni pourquoi ay nit wara doon influencer gouvernement pour di wax ni nañu dissoudre assemblée nationale mais bu len fatine ne nit nous bi mu mettez ñu len di menacer ci kasso di leen menacer ci agression ñoo taxawoon def face gars yi fi nekk nekkoon ci nguur jamono jooju ni leen Amadou Ba du fi faloo Macky Sall du ñu tànnal candidat parce que booba dafa amoon lu ñu gëm ci ay changement ci Sénégal la ñu gëmoon ci ay changement ci Sénégal ci Macky Sall du ñu fal ki mu ñu tànnal jeexal na ñaari mandaawam na dem bàyyi ñu ak Sénégal loolu lañu ñu gëm ba léegi te dafa bokkoon ci la ñu gëmoon muy ni dañu fi jële li nga xam ne mooy ñaari institution yooyu la

xam nañu texte yu assemblée nationale N'écoutez-nous kon waa APR mun nañu lire règlement intérieur assemblée nationale nekkati kon waa APR mun nañu lire texte yi nekk ci constitution bu Sénégal alors fan lañu bind ci constitution bu Sénégal comme situation bu Sénégal tolloon Macky Sall di dàq ay élection présidentielle fan la bind ci Sénégal ñi bi ay ndaw de def manifestation da ngeen leen di dóor bal ñu dee fan bind ci Sénégal. jàpp mag tooxal ko viol pendant ñetti at mujj gi nga naan attentat xawma lan ak lan ak lan fan nga gisee ci Sénégal juróom-ñetti fukki bakkan nag nangam de sa nguur di waaj a jeex nga ni damay amnistie fan ngeen gisee ci Sénégal nga ni euh, wóoru maa am sax troisième mandat mais comme maay président maa am doole lu ma neex def bu ngeen bañee ma nekkat candidat da ngeen ma koy ñaan ci njekk kon yéen waa APR nekk te mun ngeen a lire texte yi nekk ci constitution bi question yi ma leen laaj yépp génneel leen ma fan la nekk ci biir constitution bu Sénégal wax leen ma fan lañu ko bind ci biir constitution bu Sénégal kon tey ngeen di soog a taxaw di wax ay motion de censure tey ngeen di soog a taxaw bu défendre constitution bu Sénégal bi ŋànk suñu ay institution ngeen ni da ngeen di défendre yooyu les institution tey ngeen di soog a xam ni am réew dafa am ay institution yu dëgër ak constitution bu dëgër Sénégal yi bu ñu xamee tripatrie ay constitution ci libéraux yi lañu ko jàngee ci yéen lañu ko xamee da ngeen a ni ñi ngeen bokkal Sénégal nguur gi nga xam ne dab na leen war naa tax ngeen foog ni yéen leen gën a yeew lem woom lemul xel nit ñi dañuy xalaat surtout leen leen ci benn pexe gën loo leen nekk ay Sénégalais gënoo leen leen a nekk ay gor ñu dëkkandoo ak yéen te ëppoo leen fit ni courage fit ak courage bi sénégal yi amoon folli leen fal ñeneen la ñuy ak courage boobu défendre projet bi jàppale leen. dooleel leen gunge leen accompagner leen ba am ndam du jomay du Sonko Sénégal ngeen duggaloon ci genn gute go xamni nit ñepp ñëpp àndandoo dañ fa wara genn dañu war a joxante loxo bu tabax Sénégal bu nak tabax Sénégal bu nëtëx tabax Sénégal go xamni dinañu dimbali ba egg ci ñu ñee suñu benn natango rew waye tay xol situation bi ñuy dund ay bor yo xamni ñu dañ koy fay ba ci suñu ay sët te mënoon naa ñàkk ay contrat yo xamni fokk ñu négocier waat ko mel ni ñu won Sénégal dañuy tay la suufu Sénégal mel ni ñun suñu espace bi ñu am def leen sonal lan mo xew e ngeen di loolu duñ ko changer parce que yeen ngi gundaandaat parce que jël ngeen rawale ngeen sàcc ngeen ngeen ñi dañ leen di bay ngeen nek dans la tranquillité alors que ñi ñu denk réew ñu war gouverner ñoom buñu gouverner man doon naa sax di leen conseiller ngeen dal effacer teggi ben benn jour man kay wax mu ne motax Amadou Ba gën a ne ci ñi nekkoon ci biir APR ñu naan ñepp la mani ma ni waaw ñëpp yam mais am ñu am intelligence protéger seen bop ndax seen comportement mais amna ay dof yo xamni ñoy exposer seen bop ndax seen réewande parce que mënoo nekk ci nguur jalgati alalu askan def ci lu la neex ba nopi ki la remplacer nga ne ko do gouverner waaw kañ opposant di won ku fi nekk do gouverner pourtant Ousmane Sonko ak Macky Sall

<laughs> da ngeen di ndax seen bopp jàngi jëf bokk yi ci ànd bi ak MMD Média yi gis nañ ci fi ñuy jeexale seen émission antenne 14 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen euh, kon ñoo ko déggandoo kàddu bi nga xamante ni moom mii di Mansour Diop moom du joxe règlement intérieur au assemblée nationale en tant que juge avocat beaucoup ci groupe parlementaire beaucoup de ni ci assemblée nationale bokk ci commission de loi indina na ay xalaatam wax ko mooy li may wax nit su ci manipulation day nous nu à manipuler askan wi wax dëgg yàlla journaliste nga ci wàllu bind ak publier information lañ la xamee assemblée nationale bàyyee ko député yi nga xamante ni ñoom ñoo règlement intérieur comme que gu nekk nous muy règlement intérieur ginnaaw nag bi nga sa propre piège nga daanu amul benn yoon boo article 73 pour règlement intérieur de bu assemblée nationale dafa stipuler que lepp lo xamanteni ci fukki député au moins suñu requièrent li nga xamanteni moy procédure d'urgence dafa jëm ci délai yo xamanteni dañ ko réduire jëmal ko ci ben moitié bo xamanteni dina tollu ci trois à quatre jours maximum kon donc je crois que daanu donc li ngay wax amul solo li am solo moy le 11 septembre date la bi ñu fixé pour mu def déclaration de politique générale amna yenen na yeneen loi yoo xamante nañ ko et urgence bi jamono ji yakarna ni lu ëpp urgence ci Sénégal du dara lu premier ministre ñeu définir plan de volum, définir li nga xamanteni moy tableau de bordam ci diiru 2024-2029 Sénégal nan lañu yoree Sénégal Sénégal dëkk bi dafa ne kak ne karaj kenn investirul kenn dugalul amul dara lo xamanteni mi ngi marché tout ay ay à l'arrêt donc mënuñu am lu ëpp priorité que premier ministre ñëw taxaw assemblée nationale def li nga xamanteni moy déclaration de politique générale kon nit soy wax da ngay xalaat bu baax li ngay wax xalaat askan bi ngay waxal ñu leen manipuler peuple sénégalais bi ñoom ñooy réclamer déclaration de politique générale ce n'est ni les députés ce n'est ni l'Assemblée nationale ce n'est ni les politiciens c'est le peuple sénégalais qui réclame une déclaration de politique générale du premier ministre date bi nak yóbbu nañ ko saafantoo ngeen fi règlement intérieur baaxul président Bassirou Diomaye fay ne dem leen ngeen delloo ko ñu delloo ko ba pare jox ko pour mu promulguer ko mu daal di koy promulguer ba pare nëbbal leen ni que promulguer na ko keroog assemblée le ministre justice Ousmane Diagne taxaw ne promulgué nañ ko publier ko au journal officiel lan la leen di su déclaration de politique générale ngalawaay wër ngeen porte du issue bu nek dugal ngeen lu le 12 pour tas assemblée dugal ngeen piège bo xamanteni yene ci ci ngalla way dem leen ngeen jox sénégalais sen déclaration de politique générale mo ëpp wax ji muy Mansour Diop di Serigne Saliou gueye di Moustapha Diop je crois que tey su dee bëgg dëgg li premier ministre. demal nga def sa déclaration de politique générale nga rusloo Sénégalais yëpp xam ne danga am programme xam da am solution xam nga système bi dañ koy changer xam nga dangay ngay réduire bi xam nga dangay ngay wàññi coût des denrées góor jigéen dañ koy criminaliser franc CFA daf fiy jógee CEDEAO dañ fay génn loolu lañuy xaar ci yéen mais tey li ngeen di def lii yëpp ay lay la yoo xamante ni teguwul fenn sénégalais yi nag jóg leen taxaw ngeen ubbi seen bët. liñ demande leen demandé déclaration de politique générale lu normal la niñ ko falee primature muy dogal di boom di buum mi noonu la amee droit delloo askan bi seen déclaration de politique générale mënuloo jox nag suñu xaalis de la fay salaire de la jox lu topp carte wala cinq auto ngay véhiculer du gundaandaat jox la këru fonction fi nga xamante ni fa ngay dëkk ci xaalisu sénégalais ba pare ñi laaj la suñu déclaration de politique générale doo ñu ko joxal kon Mansour Diop da ngal la waay su ngeen jàkkaarlu teeg askan bi da leen leen wax dëgg tey nag yéen ñëpp da ngeen di def propagande pour am place je crois que féetee ci côté askan bi moo gën di féetee ci côté opposition moo gën di féetee ci côté pouvoir li am solo mooy féetee leen ci côté askan bi ndaxte askan bi ñoom ñoo fi pouvoir kon donc je crois que suñu demee ba ay journalistes di wàcc seen titre di wax loo xamante ni ñoom si seen bopp gëmuñu ko wala maîtriser ko wala xamuñu naka la tuddee pour manipuler waat askan bi ngal la waay rus leen 86 personnes yi nga xamante ni nañu justice n'est pas encore faite Tay ngeen bëgg continuer waat ci manipulation bobu ngeen xamantene mom ngeen tegoon ci bopp askan bi ba ñu bari ñàkk ci seen bakkan donc je crois que tay mun leen am porte de sortie ndaxte porte de sortie yëpp tej nañ leen.